wa baxda salaatu wa salaamu ala sayidil anami xaatimi nabiina wa imaamil mursalina wa ala alihi wa aswaajihi wa xadimihi wa salama tasliman ginnaaw ubbee suñu bunt ci sant yàlla mi nga xamante ne moo digal yonentam bi ne ko jàngal sa turu borom bu tell bi bu wi nga xam ne moo sàkk doomu adama ci lumbu deret ne ko jàngal sa turu borom bu tedd wi nga xamante ne moo xamale moo xamle xam-xam ci xalima moo xamal doomu aadama lu mu xamutoon ubbee ko ci sàkk xam-xam ak di ko jafe dafa jafe nag ci nga toog ci waa bu Bousso bëgg teg alxuraan ak xasaayit woowu fit dama koo amul ndax man samay at bëriwul sëñ Modou Faty Xare ma jur sëñ ma Sàmba Mbàkke moo ko jur waaye damaa seen ci baas bi ay kilifa yu toog yoo xam ne toog gii ma toog ci kaw nii suñ bopp yi tolloo mën ak yéen rek maa ngi koy jégalu maa ngi koy jégalu bu baax sëñ bi ndax ñii ma séen nii jarul may tudd tudd kenn ku ci nekk rek ma sëñ bi nee na ma jégaluwaale baas bépp toog gii nga xam dañ koy toog ci kaw siis bi te tolloo ak yéen rek maa ngi koy jégalu bu baax a baax. bi ci topp nag dafa di maa ngi dégg ñëpp di wax sëñ Touba liggéey bi. sëñ ma sàmbe kandi bu saak ñëpp ñoo ñëpp jàmbaar lañ def nañ lañ war a def waaye dafa am loo xamante ne nag yoonu murid dañ ko war di bàyyi xel jamono bii gis nga Espagne Espagne xam ngeen sëriñ su bari xam nañ l'islam dafa duggoon ba pénétrer Espagne ba àgg république tchèque ba laal Kharkov ba laal Kosovo ba laal Yougoslavie ba dem ba ca Tchétchénie ba laal Union soviétique réew moo fi dugg rek fekk fa ab pale bu rafet ñu ne la ab amirul mu'minin moo fi dëkk l'islam di dox cinq cinq di dox dix sur dix ñëpp naw ko foo dugg ci Europe rek fekk fa ab pale ñu neen ab amirul mu'minin moo fi nekk foo toll dégg nodd yi l'islam am doole lool ba mu demee noonu nag barke bi jàpp leen moom ñi nga xam ne ñoo dirigé woon islam mi ci Europe ci Europe barke bi jàpp ñu toog ci pale yi ku ñu woo réunion ne la nañ réunion nga ne déwuma sama baay ak sama maama yor barke bi ku ñu woo ndajem diine nga ne duma ma dem ku ñu soññu ci ndajem diine nga lank toog fa nga toog ne sama baay ak sama maam ñoo yor barke bi kenn ëpp ma doole man topp café gi ak ataay gi rek ak yéeru weef yi ak kaw taax yu sedd yi tëdd tubaab yi di préparé di préparé ba xëy ni tës ci seen kaw rey leen bañ jeex takk seen jumaa yëpp ñu nangu ko soppi koy église samp kurwaaye ca kaw boo demee Espagne da gis jumaa ji ñu samp kurwaaye ca kaw nga dugg ci biir jumaa ji gis ayatul kursi yeeg walaaw xaali bu nii gis ngeen ko dem ngeen Espagne te dafa am loo xamante ne nituk yàlla lu mu liggéey liggéey rek dafa am ñaar yoo xam ne mën nañoo gàllankoor liggéeyub yonent waxuma laa nituk yàlla te ñaar yooyu luñ jara moytu la nañ ko moytu yu jara moytu bi ci jiitu mooy sàggan jàpp ne rek yaa barke bi bu ñu wootee fen doo dem lu ñu santaane doo def bi ci topp nag mooy bu gën a dangereux bi nga xam ne moom la yoonu murit war a gën a moytu nga xamante ne sëñ Tuubaa moom mbiram kenn mënu ci dara déedéet waaye dafa am ak guy li muy rëy rëy rëy rëy ak max mën na koo dugg ba daaneel ko boobu nag xam nga mooy ban mooy bañante ñaar yi yu jara moytu la ci yoon wi mooy bañante ak sàggan te sëriñ Touba dafa defar lépp bi mu sampee yoon wi dafa defar lépp takk ko lépp muy benn bopp mu boole mbokk yëpp jël yi maam Thierno Ibra Fati jox Serigne Fallou soxna Assou Thierno jël ñaari doomam jox sëñ Modou aw Balla kenn ak sañ seexaw Awa Balla xam ngeen lépp jël rakki borom Daaru Muxti jim bokkal benn baay rakki borom daaru munti jim toppoon ci moom mu jox ko sëñ ma sëriñ ma sëñ ma sëriñ ma sëñ ma sëñ Modou Ndumbe Mbàkke sëñ sëñ Mouhamadou Ndumbe mu am ci sëriñ Modou Xabbal xam ngeen ko dëkk bii biñ koy sanc sëriñ Massamba Kandi Bousso dëkk yi sax laa bi leen sanc Daaru Karim gii Daaru Karim Tindodi Ndindi ak fii ak daarul xaddim gii dëkk yi bu ñu taxawee kenn wëralu ko ku dul sëñ Massamba Kandi Bousso ndax sëñ Massamba Kandi moo ñëw ci sëñ Touba ne ko man day Mbàkke ànd ak mbooloo mu bari ne ko dama laa bëgg dem ci àll ba liggéeyal la di liggéey di indi waaye toog gi rek daanaka laa laa bëggoon a moytu dem liggéey indi sëñ Touba ne ko fan nga bëgg a liggéeyee mu ne ko damaa bëgg dem ba naaweel ca xabrul maam astawaalo ma ca naaweel bu ma demee di wattuwaale xabrul ba di fa bay dong yi ma topp di indi sëñ Touba daal ne ko damaa bëgg nga dem ca Touba yebal ko fii bisub keroog la sëñ Fallou la sëñ Touba woo sëñ Fallou ak sëñ mu Moussa ak sëñ ma Massamba Mbacke ak sëñ Massamba Kandi Moussa kenn ku de mu yebal la ci dëkk kii mu yebal ko di kii mu yebal ko Daaru Karim kii Ndindi kii mu yebal ko fii ci bis boobu la loolu am dëkk yi bu ñu taxawee sëñ Massamba Kandi Moussa tax li ci des nag mooy lenn mooy dañoo tollu nag suñu toll yoonu murid ci góorgóorlu takkaat suñu digg yi yoon wi xam-xam a ngi fi xam-xam ci yoonu murid la samp taatam loolu àdduna bépp d'accord nañ dëkk bu am doole buy màgg boo xam ne dëkk bi képp képp rek doy na Touba ñu bari dëkk bi donc doy na ci ñoom te Touba dëkk bi Sénégal xamuñu ko li fi nekk lépp Sénégal xamuñu ko dëkk boo xamante ne boo ko sañ ci ak léegi mu dem ba toll ne Touba gii mu toll ab église mosu fee am mosu su fee jaamu lu dul yàllaak ak alxuraan soo doon wër yone adduna bi ba mu daj benn yonent mosu koo am benn nitu yàlla mosu ko am kenn mos sanc dëkk bu toll ne Touba ba mu toll ne Touba te mosu su fee jaamu lu dul yàlla ak alxuraan mos sa am kon li ci des mooy takku gi takku gi booloo gi ak bëggante gi nañ ciy soññu nit ñi bañante daa mën a yàq lu ne lu ne lu ne ci àdduna rek bañante mën na ko yàq bi ci topp nag mooy sëñ bi sëriñ Fallou Boussa maa ngi lay sant baax te di la gërëm yàlla dafa def ci yow jikko yoo xam ne su ko defoon ca sàmm bay an topp ca nag yee ca àll ba sàmm bay topp ca nag yee ca àll ba yàlla def na ci yow jikko yoo xam ne bu ko defoon ci moom ku ko topp ëllëg yow man xeyam doo la yow rawatina nag bi nga bokkee fi nga bokk ak yërmaande gi suñ borom def ci yow ak ni nga mënee xettali doomu aadama goo xam ne dara du la ci fekk ci sama bopp laa koy bu la nekkoon nga ñëw toog ci dëkk bi ñëpp di la fekk ndax ñëpp la soxla waaye bañ a wéy ndigal bañ a fakk ndigal kaamil bi ñu la jox nga bokk ca tax na mu sax fii daanaka doo fi toog lu bari kon li may ñaan suñ borom rek mu guddal saw fan te yàggal la fi jëmm nga joo xamante ne sa dund am na njariñ lool ci ndaw ñi ndax laabiir gi ak yaatu gi ak baax gi bi ci des nag mooy taalibe yi bokk ci kër gi taalibe yi bokk ci kër gi laa muy góor jigéen yéen ñi nga xam ne yéen a bokk ci kër gii laa wax su yàlla boole ak sëriñ boo xamante ne bu la yàlla boole ci kër kër ci yoonu murid kër goo xam ne te ne bokkuñu ci sëriñ si nga xam dañuy tere dara ba pare wëlbati ko di def yàlla boole la ci kër goo xamante ne danga cee bokk kër goo xam ne fu leen fekk jiital leen te sëñ Tuubaa ba léegi kon yow am nga sas yow taalibe bi fi bokk ma bëgg taalibe yi bokk ci kër gi mbusoo bi nag waxuma rek kër sëñ Massamba Kanni bi mbusoo bi gépp laa wax bu yoonu murit amee ba pare nag taalibe yow taalibe bi nga xamante ne yow yaa bokk ci mbusoo bi yow li naan fas yëpp a waaye roccee ci raw te yaay rocc yow ndax da bokk ci kër goo xam ne kër gi benn dara da koo amut lu dul jaamu yàlla yow waxtu wuru laa raw yow taalibe yi nga xam ne yaa dëkk yaa bokk gedde mbusoo da ngaa bokk ci kër goo xamante ne addi yëf foo toll waroo bëgg dara da nga ko faa war a yóbbu ndax lépp loo fa dugal ci yàlla lañ ko def jëmul feneen te xam ngeen ko te dafa am lu ñuy newee ab taaliba mooy fonk fi nga bokk ndax olof dane mbay ci say om kon yéen taalibe yi nekk ci kër gi tappale yi xew ci jamono ji ak njuuj njaaj yéeg yi waru leen cee bokk du seen wàll lii ma leen wax ku leen waxut leneen soo la yàlla boolee kilifa yu mel ni da ngay fexee jariñu ci ñoom mais sàggan sàggan gi yéen a ko ñëpp ko war a moytu waaye ci raw yéen ñi bokk ci kër gi nag laa wax kon nag damaa bëgg taalibe yi bokk ci kër gi na ngeen laxasaay waat góor góorgóorlu yàqut ak jamono bi waru leen ca bokk ñàkk pasteef gi tappale yeeg njuuj njaaj yi waru leen ca bokk déedéet taalibeeb gede boo ko doonee am na lu la war lu xam nga ko mooy ñaar yi te ñaar yooyu waroo ko sàggane sa bakkan bii nga ci war a teg mooy sell ak julli juróom yi ak joxe addiya kon nag yow bu la bàll boole boole ci kër gu mel noonu da ngaa war a xam ne yow da bokk ci kër goo xam ne exceptionnel la kër gu ñëpp di rey boo fa rakkee doo sàggan doo des ginnaaw mais léegi nag li nga xamante ne moo am mooy façon taalibe boo xamante ne lépp loo ko wax rek comme li sëñ bi toogoon fii jàpp ne ay dóor la ay nax bu leen bokk ci ñooñu gede kuy naxaatee kuy amu fi amul ci yoru mu ne amati na gede kon nag taalibe yi nga xam ne di góor ak jigéen am da ngeen sas da war a gën a takk gën a laxasaayu kër gii ngeen am waru leen ko yemale ak fenn lépp a ngi fi nag lépp a ngi fi nag def lu baax moom kenn du ko def di ko rëcc sëñ Fallou Mbacke dafa am benn bis sëñ Modou Fati Xari sama waajur ñëw siyaar si ko ànd ak taalibeem bi mu dikkee nuyu ko daan ne ko kii de Mbacke sama taalibeem daan ne ko kii nag Mbacke mu ne ko waaw mu ne ko moom de Tijaan la waaye dalaa bëgg ba tudde la doom te xamu la bi dafa dëkk ci ginnaaw njaareem guddi gàmmu jot dajeeg jamonoy nawet mu jël am mbaam sauf ci ñaari saakuy pulo mooy saakuy pulo yu njëkk yooyu nga xam ne benn bu ne juróomi ponk la koy jàppoo mu ñëw ba ci digg àll bi mu melax dënnu mbaam mi tiit ñaari saaku yëpp daanu mu jaaxle loolu ci lëndëm mu wax set gi ci taw bi bi melaxaatee mu gis jëmm ji tuut sol manto bi wax ne coppet ñaari saaku yëpp ci ñaari baaraamam tegaat ci mbaam mi ba mu jekk daat ni mes mu dàq mbaam mi ñëw wax ko sëriñu tijaan yi nekk njaareem ki sant kanji daana ko damaa ñëw ba ci yoon wi day waaye damaa jaaxle ndax damaa ñëw ba ci yoon wi mu melax dëndu mbaam mi tiit ñaari saako yëpp daanu waaye damaa gis jëmm ju weex tàll mu melax ma gis jëmm ji sol manteau bu weex jël ñaari saako yëpp ci benn loxoom tegaat ci mbaam mi ba mu jekk daal di mes te saako yi benn bu ne juróomi ponk la koy jàpp kooku ne ko da baax foo jaaxlee da nga am dimbale ñu teg ci ñaari at mu ñëw Tuubaa fekk tudde woon na sëñ Fallou doom da koo soppoon rek ba tudde ko doom doom ji am na ñeenti at mu ñëw Touba nag ànd ak sëñ Modou Fadi Xari bi mu dikkee sëñ Modou Fadi Xari ne sëñ Fallou kii sama taalibe kii nag tijaan bi la ab tijaan la waaye moom dalaa bëgg ba tudde la doom te xamu la sëñ Fallou na ñokkee tàcc ko ne ko xam naa ko waay xam naa ko ba ca mbaam maag sëf ba xam naa ko ba ca mbaam maag sëf ba waaw kon comme ñu ngi ñuy signalé waxtu bi bëggoon naa borom waaye daal li may li nga xam ne moom laay tëj rek mooy nañu gën a góorgóorlu bu baax a baax taalibe yi bokk ci kër gi li ma leen wax nañ fonk kër gi nit bala ngaa fonk fenn da ngay fonk fa nga bokk ba pare maa ngi sant sëñ Moustapha Bousso mii ci jumaa ji di sama xarit sëñ bu Bousso di sama xarit maa ngi lay sant sëñ bu baax te du la di siyaar jërëjëf